فالغير دون الله إن حققته عدم على التصيل والإجمال واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في محوه وفي المحلال من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عن المحال والصلاة والسلام على مولانا رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما تسليما يوم الدين mbokk jullit yi mbokk taalibe yi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen wàcc seen wàccuwaay di nuyu suñu xalif fii si Dakar Cheikh Mouhamadou Amine Ibrahima Niass di teg suñu nuyoo suñu ziara ci suñu xalif Pape Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu di ko jox suñu nuyoo ak suñu ziara mu teg ko ci loxol xalifa bi ginnaaw loolu nag mbokki jullit yi mbokki taalibe yi comme ni ñu ko baaxoo defee euh, at bu jot dinañu baaxoo def lu mel ni ngir waajal li nga xam ne mooy siyaara suñu sëriñ Cheikh Mouhamadou Amine Ibrahima Niass ñu gën ko xam ci Baaba Lamine ci fii nga xam ne mooy dëkk si ci terrain ñu del siaar ci li nga xam ne xiwal na ci biir xiwal ci biti ci zahir ak ci baatin ci siyaaree Mouhamadul Amin Ibrahim nga xam ne boo ko siyaaree siyaare nga Cheikhul Islam El Hadj Ibrahima Niass siyaare nga xalifa Mawlana Cheikhul Islam El Hadj Ibrahima Niass siyaare nga Cheikhna Ahmad Bun Ahmad Tijaani radiyallahu anhu siyaare nga yonent Yàlla sallallahu alayhi wa sallam وكافة أصفياء الله وأوليائه وكنوزه في الأرض ci loolu nag ci lañ danaa wax ne ki ñuy ziare tey kenn du ko jàngal. waaye noonu yow laay jox lenge bu ma fi bayee ko li may defal yonent yàlla sallallahu alayhi ca woy wa ñëpp mokkal ba baaba ñëwee tontu ko ne ko wa inni hmm. wakilil hubbi أستيقظ كأسه وإني به كالورق دهرا أقرد dundam lépp jox na ko yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi ba nga xam ne desewul dara toog di wax ci moom yaakaar naa ne loolu guddal la Baba suuf si xam na ko asamaan si xam na ko guddi yi xam na ko bëccëg yi xam na ko. di invité siyaar boobu le 14 di invité Sénégalais yi di invité àdduna yëpp di invité nit ak ku dul nit sax. Mhm. ñu ngi lay invité si bés boobu ndax kim wuutu muy Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu nga xam ne moom la toogal xalifaam fii ci Dakar bi Seydi Ahmed Tidiane moom dafa wuutu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam si lépp lim kulli maana al kalim daje ndax ñu mën a jëriñante daje bi nag li ko sabab mooy ñëw ziyaare si ñun ay taalibe tiijaan dafa bokk ci li nga xam ne lii mooy suñu ponk tariqa mooy di ziyaare ji ziyaare ko nag ñëpp wax nañ ko mooy ziyaara baay ziyaara baay bi nga xam ne moo waxoon ne moo waxoon ci xaqam ne rabbal amini atibil amin kullal makaribi aha kañ looloo am moom mbooleem ku ko ziyaar rek da nga jëriñ Euh, wax nañ ne ku bañ ñàkk ziyaare ko waaye ku bañ réer ziyaare ko mm-hmm. mu ne am na si ñoo xam ne maanaam duñu ay yonent te bokk ñoom ci ñu sayit te bu ëllëgee yonent yi danañ leen ñee ñi sayitoon danañ leen ñee ñu ne ko yaa Rasulullah ñoo ñan la mooy ay nit la yoo xam ne ñi dañ ay nit la yu fasantikoo yoo xam ne dañuy dajee ngir bëggante di dajee ngir tudd yàlla di dajee ngir siyaare ante ngir jëm yàlla ji taalibe yi na ci ñëpp def te ñu ci bu baax di jigéen ñi tamit ci ak cant bu yiw ñu fas ko yéene indi ci bërëb ba ndax ñu nit a tëgg tëggu yu kawe ku ci nekk ci ñun rek ñëwal na la ñu ngi ci oo ñëpp góor ñi jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi rawatina ndaw ñi ndax ndaw ñi dafa nekk nit ñoo xam ne baaba daf leen a jël dugal seen xol yi bëgg yàlla dugal seen xol yi jub dugal seen xol yi jullite kàddu yu ci des yëpp nag ci bés ba incha allahu day ko ñu ngi oo ñëpp incha allahu dimanche la 14 juillet fii ci terrain Gaal gi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu di leen siyaare ndax tey ñooy masharu Mawlana Cheikhul Islam Hadji Ibrahim Niass radiyallahu anhu ñu ngi leen di siyaare comme ni ko mbokk yi taalibe yi waxee kii njiital suñu mag suñu kilifa alxaaji jim Mouhamad Lo bi mu waxee rek doy na waaye ñu neen na taalibe bu ci nekk joxe kàddu ndax dëgg-dëgg yàlla làmmiñ wa barke yàlla rek mooy ki nga xam ne moo ko xam kon ñu ngi oo mbooleem taalibe yi fuñ mën a nekk góor ak jigéen mag ak ndaw ñëpp baaluñ kenn mayuñ kenn ngant na ñëpp mobilisé wu ci siyaare bi te xam na siyaare la boo xam ne mësta ñàkk yaakaar la ilaha illallah la